asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna bi yëpp man la honorable député Amy Ndiaye Gniby euh, digne représentante du peuple nekkal askanu Sénégal fële ca pencum ndawi réew mi ma ñëwoon rek tey doon àddu ci li nga xam ne sama collègue sama naataango honorable député Yaya Sow def na ko muy loo xam ne rafetlu ma ko def na acte boo xam ne ñaawlu naa ko trop parce àdduna nag nit dafa war a am noo noo noo war a mel mooy doomu aadama da ngay gore d'abord damay féliciter sama naataango yi nga xam ne euh, élire nañ leen foofu ci bureau ba nga xam ne doon nañ ko renouveler muy assemblée nationale nga xam ne at mu jot dañ koy yeesalaat euh, te bureau te assemblée nationale ñi ko seq bari lool muy cent 165 députés kenn ku ci nekk la fay sa wërsëg ci taxawaay wala toogawaay ak tolluwaay danga ko faa war a jël donc su fekkee ne ki nga xam ne mooy kilifa suñu suñu kilifa ñun ñëpp bu defee la muy def kenn ci ñun warta mën a taxaw di am lenn loo xam ne war nga ko cee mën a nekk di wax parce que nag ku ci nekk rek sa wërsëg ngay jël te honorable député Yaya saw dama koy adressé directement président Macky sàll na jël matuwaayam ci honorable député Yaya saw parce que trop c'est trop président Macky sàll suñu nawle la suñu nawle la ñun ñoo ko jël jiital ko mu nekk ci Euh, boppu Sénégal ñun tamit sénégalais yi jël ñu jiital ñu ñu taxawal leen ca péncum ndawu réew ma ñu taxawal sénégalais yépp nit nag bu fekkee dangaa taxawal askan te gënoo leen dafa war a am noo bindoo assemblée nationale pour ñépp la kenn ku ci nekk ci ñun poste bu ñu la jox danga caa war a jàpp te defar te rafetal parce que jamono jiñ toll ni président Macky dafa am lu ñuy xaar ci moom mooy lan mooy liggéey bi nga xam ne commencé na ko mu eggale ko tolluñ ci jamono coow dañoo nekk ci jamono liggéey action lañ bëgg honorable député Yaya nag dana taxaw fi mu war a taxaw yam fi mu war a yam comme ñëpp on est d'égale dignité président Macky Sall n'est pas n'importe dootuñ ko may muy taxaw di ko wax dara su ko président Macky Sall lijjantiwul ñun ñi nga xam ne ñooy ay nawleem doon ay naataangoom bokk ak moom département kafrin ñu bokk ñun ñëpp nekk ci euh, parti APR ñun dinañ ko lijjantil suñu bopp ndax Yaya nag moomuñu. te tey bu ñu demee ba nga xam ne dañuy taxaw di wax ak moom c'est grace à son excellence monsieur Macky Sall Macky Sall moo ko jox gëdd parce que Macky Sall moo ko jëloon investir ko mu nekk conseil économique social environnemental assemblée national ñëw mu ne fa ñukk conseil économique social environnemental ne day nekk député euh, ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom gox ñu jàppale ko ci ñun ñëpp ñu jàppale ñu bi ñu investir ñu fal ñu ñu am majorité bu am solo ñu nekk tey nekk ay député nekk assemblée nationale tey moom bu taxawee fii di kaas naan président Macky Sall am na lu mu jox ñi joxu ko dara président Macky Sall fii la ko jël def ko mu nekk koo xam ne nii tey moo jiite woon lépp ci parrainage bi ci région Kaffrine te ñu ko gën a kale foofu nekk fa ñu ko gën a xam nu mu demee ñu ko gën a nekk ay ay ay responsable ñu ko may ma ñu ko gën a nekk ay responsable ñoo xam ne nii ñoo ko gën a liggéey ci département bi yaa ngi dégg te kenn waxu ko woon parce que président Macky Sall moo ko tànn président Macky Sall bu tànnee teg ñun dañ ko war a jëfee parce que dañoo am ci moom yaakaar bëgg liñ manqué suñu gox mu defal ñu ko nit nag mënoo bëgg la nga manqué ci sa gox mu defal la ko ba pare te bu jëlee teg nga di ko ngay ngay am noo koy xoolee loolu dootuñ ko nangu mayetuñ ko ko yéene gisu ci moom intérêt personnel lay bëgg daal di te député warul mën a doxal intérêt personnel on est des patriotes la patrie avant le parti nit ku ci nekk dangay xool li nga xam ne mooy doxal réew mi nga nekk ci waaye bul xool lenn loo xam ne da ko war a jël di ko séddoo fii lu ñuy séddoo amu fi lu ñu péncoo fi am yaa saw li mu def mooy Euh, le quinze passé assemblée national dañ doon def renouvellement bureau assemblée national commencé nañ ko dinañ ko yeggale parce que à chaque fois noonu lay demee mooy que ne jël nañ ñi nga xam ne ñooy vice président yi huit vice euh, huit vice président assemblée nationale ñu installé leer installé questeurs yi premier questeur ak deuxième questeur installé euh, commission yi commission yi onze lañu woon léegi yokk nañ ko ba fi mu toll nii mi ngi ci 14 commission yokkaat nañ ci 3 commission yaa ngi dégg ñooñu lañ jot a installé suñuy delloo assemblée nationale dinañ def ñi nga xam ne ñooy vice président yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy complété commission yi donc moom te moom sax warul wax parce que commission yi passé année bi passé bi ñu renouvelé nii il était vice président commission santé nit nag euh, euh, mënoo mënoo ne bis bu set man maay am la ca kaw ku ci nekk sa wërsëg ngay jël te man li ma li ma ko jàppee mooy commission yi dañoo bëgg mu dox dañoo bëgg liggéey bi dox dañoo bëgg li nga xam ne mooy fast track président Macky ne nañ fexe ba lépp dox li nga xam ne tey jël na ko moom xanaa su xooloon ci ci ci ci ñeneen ñi du wax loolu parce que ñoo ngi ni supprimer poste premier ministre te kenn déggul Boun Abdallah Dionne wax dara parce que dafa xam ne président Macky Sall dafa am yéene ci réew mi te bëggul lenteur administrative am mu doxal ko Yaya Sow moomul nit ñi moomul président Macky Sall te président Macky Sall may na ko lu ëpp désormais dañoo bëgg mu mettre ko mu taxaw fi nga xam ne fa la war a mën a taxaw defu ko ñun ñu lijjanti ko parce que ñoo bokk ak moom région ñoo xam la nga xam ne namoon nañ ko suñu région te manqué ñu président Macky Sall dikk duut fa baaraam di ko defaral te pareegul ñu am lu bëri lu ñu soxla ci moom te di ko ci xaar mayetuñ ko mu koy wax dara. li may tëjee mooy que ne Sénégal fan yi sax ku xool ci sëñ Mountakha ak ouverture Masalikul Jinaan ah ñëpp ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax doon fi ay xalif généraux nekk Sénégal di jàppale doomu aadama yi bëgg jàmm bëgg lépp doon sutura ak dal moom waroon naa mën a bañ a yeewaat fitna di wax président Macky Sall dara ndax xam na ne boroom njaboot soo ko waxee loo ko warta wax njabootam dinañ taxaw lijjantil ko ko dinañ taxaw fajal ko ko kon moom waroon naa mën a xool ci sëñ Mountakha mi nga xam ne fexe na ba Sénégal yépp doon benn Sénégal lépp am jàmm ñu di ñaan yàlla Sénégal doxee noonu parce que Sénégal dañoo bëgg liggéey dañoo bëgg jàmm dañoo bëgg réew mi avancé dañoo bëgg li fi manqué yépp yàlla defal ñu ko de euh, njaboot nag du ñàkk yëngatu mais bu yëngatoo tamit nañ fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo deful yoon ñu teg leen seen place teg leen ci yoon ba bu ëllëgee dootuñu am fitu def ko parce que lii nag c'est trop asalaamaaleykum wa rahmatullah